مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد ngi fi boo xam ne dañoo fas yéene mu gën a yokk gën a jëmaat kanam ndax bu ñu noppee ci daara ji dañuy yeesalaat jàngukaay bi incha allah bu noppee gannaaw noppi nañ ci jàkka ji jàngukaay bi moom mi ngi fi woon waaye nag danoo arrêté woon lépp ngir bëgg jaare ji noppi euh, jumaa ji noppi bu jumaa ji noppee nag ci lañuy jëm ci institut boo xam ne alquran képp lañ fiy jàng ak xiraat yi yëpp nag waaw day doon foo xam ne dañ fay jàng alquran di ko mokkal waaye dañoo bëgg it di fi jàng xiraat yi nga xam ne tey jii ñu nga ne ci biir daare kaamil di ko fa jàngale te mu nekk lu tumuranke léegi ci suñu jamono ji nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan dëgg la di ko mokkal waaye ka mokkal alxuraan ba di ko jàngale boo ko laajoon luy war xamu ko boo ko laajoon luy naafi xamu ko boo ko laajoon luy xaaloon xamu ko te dañ lay wax ne la man lam yu jawwidul quraana fa aasimu loolu sëñ Tuubaa ànd na ci képp kuy jàng alxuraan te doo ko tëj wiit la ngay jàng danga nga ci am bakkaar waaye doo ci am tuyaaba yal ci yàlla musal te loolu li koy tax nga mucc ca mooy faw nga jàng nag Euh, xiraat yii nga xam ne mënut a ñàkk loolu itam bëgg nañ incha allah di ko fi def du jàng rek alxuraan euh, mokkal ko loolu moom bari na ci dëkk bi euh, lu ëpp junniy daaraang ci dëkk bi di ko def waaye nag xaw koo yokk ba la sama waajur wa daan wax nee Sëriñ Tuubaa dana binduloo nit ku ñuul alxuraan waaye du ko jàngaloo waaw lu tax loolu <laughs> mu ne ma ah, dana ko ko binduloo de waaye day mosoo dégg kenn sëñ bi woo ko mu ñëw mu ne ko naafilaal ma fii te ngay nit ku ñuul ma ne ko lu tax mu ne ma nee na nit ku ñuul bu bindee alxuraan mu mu wér waaye bu ko jàng yàqu bu bindee alxuraan mu wér waaye bu koy jàng di ko yàq te loolu <laughs> lu wér la kon nag loole eh, moom lañ fa seen a delloo siwaat taxawalaat ko rek ba barab bii nga xam ne looloo taxoon sëñ Saliou jox na ko nu yeesalaat fi euh, lu mel noonu kon loolu itam ñu ngi koy yëgal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم